Fofu liñ ci tontu moy lepp luñ leen cheikh na da ko wax ci téré ñu diko ñaawlu ñom ñang koy waxante ci seen biir ak lu ko raw mhm. euh képp ku ci waxati mhm. laaj ko lan mo la metti ci téré bi d'accord bu la ko génnelee ba tek ko nga ci hmm da nga ubbi ci téré yi ñi nga xamanteni ñom la bokkal réew mi mhm. ñu wax lolu jëme ci mbiram wala mom ay kilifaam wax ko jëme ci mbiru te mooy gën a garaaw yi nga xamante ni nee nañ docteur wax na ko téere bi ba mu daj ñaari sénégalais moo ñoo ñoo ci seen tur ñëw mm-hmm. Cheikh Ibrahim Niass ak Cheikh El Hadj Omar Fouti lu waral loolu mooy ñooñu dañoo bind mm-hmm. lu yaatu xam nga nit ñi maanaam dañoo mënta xàmmee mbind yi lu mu tëdd xam nga nit ki nga xamante ni dafa def ay tawasulaat def ay munaajaat digganteem ak boromam bind ay ñaanam bind ay tawasulaat digganteem ak suñu borom kooku la lam bind moom la concerné day ñaan suñ borom am na soxla di ñaan suñu borom yàlla defal ma nangam may ma nangam defal ma nangam may ma nangam kooku moom la concerné bind moom kenn du ci dugg di ci wax naan lii la ak lee la mais ki nga xamante ni dafa bind loo xamante ni maanaam benn idéologie lay lay lay lay jàngale moom lay propager bind ko utal ko ay référence utal ko ay dalil tas ko mu tas ci monde entier kooku bu ñu jógee di def baax sa ndax idéologie bi authentique na conforme na ak suñu diine comme ni ko yonte bi jàngale wala déet te loolu nag wax dëgg yàlla cheikh islam baye ñax moom lañ gis mu binde noonu ak cheikh alhaji omar fouti ci rimaahu xisbu rahim ala nuxuri xisbu rajim te docteur dafa doon def taqdisul ashqas fil fikri suufi عرض وتحليل على الضوء الكتاب والسنة كل البحث علمي لا كون بحث علمي بابو دو فيك كو خامتيني لامي واخ ay adiya la yu muy def diggam ak boroomam nga da ca da ngay wax ki nga xamante ni dafa bind ay itiqadaat yoo xamante ni daf koo bëgg bina binaa ci kitaab ak sunna da ko bëgg a taxaw tabax ci diine ñu tasaare ko bu baba ci yooyu téere ci lay waxta loolu ñépp ko sañ ndax képp ko ni docteur dafa wax ci téeréem kooku boo demee ci téeréem wax na ci téere jàmbur <laughs> wax na ci téere jàmbur léegi la may kooku droit <laughs> ci mu mën wax ci téere jàmbur yu bindoon ba noppi <laughs> loolu mooy may docteur mu mën a wax ci téere yi nga xamante ni ay nit bind na ko moo tax li ma a wax rek <laughs> euh, ñiy wax ci téere bi bu fekkonte nii ñëpp ñi ci bëri ñenn ñi gisuñu téere bi ñenn ñi liiruñu ko ñenn ñi liir nañ ko waaye amuñu niveau liir ko buñ koy liir dafa teel ci ñoom amuñu niveau bu dégg téere bi ñenn ñi maanaam xam nañ ko xam lam ca wax xam la ca leer waaye ñoo koy tey di taxriif di taxriif ay waxam comme ni nga dégg ñuy wax ni dootoo dafa wax ci téere bi ni suufee yi hmm. dagal na ci ñoom ñu takk seen i ndey ak seen i sœur ak seen i doom ak seen i hmm. loolu ay taxrifaat la boo demee la tax ñuy wax da ngay fekk ñoom ñoo taxrif ñoom ñoo maanaam ñoo soppi waxi jàmbur indi ko interprété ko nga leen neex léegi nag loolu boo ko dee ci aami bi nga xam ne moom jàngul bindul liirul hmm. nga ni ko ah, am na ko bindi téere de nee na ñun waa tarixa yi nekk Sénégal mën nañoo takk suñuy ndey ak suñuy baay suñuy nàngam ak suñuy ndey ak suñuy tànt ak suñuy nàngam koku da ngay da ngay tangal ab xolam tal fek ñom objectif bobu lañ ci jël manam mettre la en mal ak nit ñi waaye alhamdullilah lolu nit ñi yewu nañ te def nañ manam lancer nañ téré bi te yëguñu ko mhm. publicité nañ téré bi te saaro parce que taqdisul ashas damay wax ni buñ ko xamé tay ci monde entier xam ko ci Sénégal ci dimension bi ñom ñoko waral ñoo ko waral ci jamono bo xamanteni lañ jublu woon moy suul ko motax suñu borom subhanahu wa taala kenn mën ta xex ak mom nit ki liy gën ci mom rek moy mu tënk ko ci taqwallah ragal yalla mhm. ndax waxu ñu ni docteur moom mu asum la boo xamante ni lu mu bind rek loolu la déedéet. waaye dañ la naan la ngay critiquer ci moom teg ci baaraam ay preuve leer comme ni mu def. macha allah bis boo ñu indi leer ci ni lii njuumte la addil la yaa ngi nii wane ni njuumte la da koy jël. macha allah ndax laysa maasuman min al xata ni mu mënee am sawaab lool la mën a am xata. ndax innamaa huwa bachar segam ulama yu magi yi cheikh alislam ibn al khayyim dañuy fekk ci seen bind ay aqta yo xamni dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala nangul leen te jéggal leen ko fa kay fa cheikh na docteur waaye dañoo wax ni nag loolu na tege ci mandute na tege ci xam-xam na tege ci ngay wax loo xam loolu rek lañ ci assalamu alaykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax xam naa fan yi xaw naa gëj ci kii bi dama yam ci vidéo bii nga xam ne euh, Atoumane moo ci doon def oustaz Atoumane moo ci doon waxtaan xëy na leneen la doon waxtaanee nag lu bokkut ak lii nekk lii ñu dagg nii waxtaane lu jëm ci wàllu histoire ak université bu Pire ak yu mel noonu ci ni ma ko ni ma déggee mbir yi waaye daa mel ne moom dagg nañ ci lu am solo loo xam ne daal ñun jàpp nañ ni wax nañ dara daal euh, te wax ju mat a jàngat la nag. wala li wa ci meuna teunk dal manam bala ñu ci gëna yaatal moy wax ji dal man li wa ci deg mom dara du ci deg moom dara du ci deg wa wax ji dara du ci deg am li concerné 5 minutes yi la wax wax ci téré beeg lim mu jaareeg nga li ci nit ñi wax ak niveau yi ci nit ñi am ak ñiko mënta lire ñi yoy yépp dara du ci deg en attendant ñu dugg ci leneen nak gëna tafsil ak yaatal waaye daal dara du ci dëgg te buñ ci waxee nag dinañ xam ne dara du ci dëgg. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, lii mooy téereb taqdisul ashxaas fil fikri suufi di ñaari mujallat bii mooy bii mooy tome deux. yii nag la Atoumane di wax ne fukk yoo gis ñu cay wax maanaam juróom-ñeent ya gisuñu sax téere bi mosuñu ci teg seen bët xam naa man nag ñoom bu ñuy wax te dëggu te nekkuñu ay naafeq toujours dañu war a génnee sama tur wax ne diw moom bokkul ci ñooñu ñii may wax maanaam wane ne diw moom am na téere bi ndax téere baa ngi nii muy benn kon man génn naa foofu ñaareel ba itam ñi amul niveau liir ko war nañ ma cee génne itam buñ naa fekkul waaw ndax la may liir ak di ca gëstu te mooy tasawuf moo gën a jafe ndax lii jafe-jafe amu ci kii ay arab la rek amul leneen dañ may génne itam ci cadre ñi nga xam ne liiruñu ko yii yëpp ñoo ko ci bind ah yëpp ñu na Forum romb rek kooku ku liirul doo ko def foo dem foo xool kon foofa itam dañ fay génne maanaam ña liirul mbir mi ba téere bi jeex nga ñëw ci tome 2 foo ibbi rek danga fa gis kon dañuy génne itam ci ñi ko liirul muy ñaar ñi amul niveau bi itam dañu ci génné ndax ñun liñ doon jàng faculté bañ duggoon doon fa jàng mooy kulliyatul adab wal ulumul insaniya qismu lugha al arabiyya wa adabuha kooku nag boo ci génnee te mënoo lire wala boo liré doo comprendre jëru woon ngay dem di jàngi kon man ci cadre ban laa nekk fan lañ may boole ñoom boo leen seetloo nag ca gannaaw amoon na émission boo xam ne amoon na ci Walfajiri Atoumane lañ invité woon ak euh, Omar Diallo wala ñoom ñoo invité woon seen bopp pour tontul seen sëriñ ci biir wax ji nag daf caa waxoon ne amut fenn fu euh, sëriñam waxee ne maanaam euh, sufiyanke yi xamuñu nu ñuy jullee xamuñu nu ñuy jàppee ak nangam nangam booba nii lañ ko tege woon vidéo la woon nii ñu ibbi page ah ne ko paas sàngam boo ca demee cent 406 406 boo ca demee maanaam waa ji wax na ne sufiyanke yi xamuñ lu ñu jullee xamuñu ñuy jàppee ñu leeral ko ba mu leer naññ waaw ah, leeral ko ba mu leer naññ moo doon wax ji eh, na ko ñëpp xooliwaat 406 tey mu ñëwati ne amut fenn foo xam ne sëñ bi daf caa wax ne eh, sufiyanke yi eh, dara araamul ci ñoom ak nangam ak nangam wax wax yu bëree bëri daal loolu ba tey vidéo lay doon maanaam bii mooy jukki bu njëkk bi boo demee ci jukki bu njëkk bi cinq cent cinquante neuf cinq cinquante sept cinq cent cinquante neuf cinq cent cinquante bi la sëriñ bi indi xissa bi nag li muy tuumaal mooy day tuumaal bu fekkee xissa bi dëgg la mooy suufiyanke yi kon daanaka daal ci ay bokkaale lañ nekk nekkuñ ci lu leer daal dara araamul ci ñoom itam xissa bi avant sax moom muy commentaire moom day commentaire ngir wane ne moom gëm na xisa bi gëm na ki ko nettali te mooy ibnu taymiya mu dalee ci loolu nag door a commentaire bi mooy lan mooy nit ñii mooy ñan nit ñii buñ ko waxee fan lay dellu day dellu ci waa ji ñuy wax tilimsaan yi dellu itam ci moom tilim saani lim askane suufiyanke yi mooy ñun suufiyanke yi nàngam dara araamul ci ñun ñun suufiyanke yi dara araamul ci ñun al xalaal dara araamul ci ñun kon waa ji loolu la wax xisa bi kon xisa bu dee dëgg la moo indi commentaire bi moo xisa bi kon xisa bu dee dëgg la moo indi commentaire bi mooy kon nit ñii ñi waxoon ne al kullu indana mooy ñun suufiyanke yi kon nit ñii di suufiyanke yi laysa indahum maa yusamma bil xaraam dara amul ci ñoom ndax xisa bi dëgg la wala dëgg ah ñu ne xisa bi dëgg la ndax ki nga ko wax moo ko wax moo ko wax ñu ne ah moo ko wax kon nag ci lañ tënkee nag ne ndax xisa bu dul dëgg jërul indi boo ko gëmul itam jërul indi kon da ko indi gëm ko wéral ko moo tax kon yow wéral nga ne kon laysa indahum maa yusamma bil xaraam falal uxtu taxrum ala wala al ummu ala al ibni fi din haula ban page la 560 kon waxna ci 560 ne kon sufiyanke yi dara aramul ci ñom jigen munta aram gur mo xam mu nek maga rak wala yaay ak dom bu ci manti don ci diine gaay yi di sufiyanke yi aramul ci ñom atuma la wax ci li